asalaamaaleykum Pape Djibril Fall man la professeur Amsatou Sow Sidibé essayé naa jokkook yow fan yi yëpp la ay message je n'y arrive pas je vais laisser un autre message on s'est parlé nous avons parlé d'éthique d'engagement nga ni ma yow sa engagement doo ci génne dara et que bu ñuy wax éthique xëy na yow ci ñi gën a am éthique nga bokk mais li ma remarqué mooy dama wax ak yow dans le cadre d'une coalition ba nga d'accord ba jël engagement ne dinaa nekk ci liste yi te samay nit évidemment coalition leen dinañu nekk ci liste yi nga laaj ma ndax am naa ay parrain ma ni la waaw am naa ay parrain nga ni ma da nga bëggoon ma être en relation avec euh, docteur Sey parce que moom moo doon co coordonné waxtaan noo na ak moom ba pare euh, boole ko ak samay nit euh, même bu dee benn parrain jox naa la ko jox naa la des milliers de parrains léegi nag li ma seetlu ne dafa am xëy na lu tax amuloo courage wax ma lan moo xew gisuma boobu courage courage wax ma lan moo xew te dama trouver ni attitude bi man daf ma décevoir parce que attitude de manque de respect notoire vis-à-vis de moi vis-à-vis des personnes euh, qui sont avec moi nga xam ni en toute générosité et en croyance de euh, la fiabilité de ce que tu nous as dit des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied ñëw mobiliser wu dugal les parrainages bind les parrainages qu'il fallait aussi ajouter man ci sama bopp ma leen di dolli ay parrainages jël parrainage yi nga xam ni dama ko amoon euh, par le biais d'un lien versé ko di dolli di dolli di dolli tey li ma remarqué ni mooy nanguwuloo wax ak man xëy na dafa am lu tax nanguwuloo wax ak man même bu dee benn parrain encore une fois jox naa la ko waxatumaak des milliers de parrains li ma lay jëkk ñaan mooy étant donné que da nga garder mutisme te je suis la nga waroon la nga diggee woon defoo ko nga delloo ma samay parrain dama la ko dama la ko wax ci kalamu yàlla ma ni boo gëmee suñu borom delloo ma samay parrain dama ci sonn def ci xaalis bu bare def ci ay déplacement à n'en plus finir def ci fatigue physique def ci fatigue intellectuelle sama équipe sonn fanaan ak sa équipe peut-être deux fois alors réagiral wax ma ce qu'il en est su ma la déggul nag durant ces vingt quatre heures qui suivent je vais passer à la vitesse supérieure waaw je vais passer à la vitesse supérieure loolu je vais utiliser d'autres voies et moyens parce que mënuma la joindre je passerai par d'autres voies et moyens en tout cas ma déception elle est très forte, très très forte. La déception de l'équipe qui était avec moi, Nyo de la Diapolé, elle est très forte. Et la déception de façon générale sera très très forte. Voilà li ma la bëgg a wax en le regrettant dama defoon ni l'éthique serait au centre des préoccupations parce que troisième voie kenn du ko tudd su fekkee ne àndul ak éthique amul àndul ak force de l'engagement amul àndul ak force de la parole donnée mon vieux le départ sans mauvais voilà donc j'attends